guddi yooyu yàlla da ko daf ko defal xolu yërmande ba mu bàyyi na mu meloon lu mel ni gaynde lu mel ni bukki rabu àll yooyu nga xam ne dañuy fàdde guddi gi yonent bi gën àdduna yàlla daf leen defal xolu yërmande ba bu ñu ñi ñu daan fàdd ñépp dañ leen a bàyyi moom benn jàngat bu sew nag bu mu bëgg jullit ñépp def ci mooy bu fekkente ne bi rabu àll yi la yàlla defal loolu ci seeni xol ba fàddewuñu lu dul ku romb sa moroom akolaat ko massa ñun nit ñi nga xamante ne bi yàlla dafa ni qul innama ana basharum mithlukum yuuxa ilayya annama ilahukum ilahun waaye wala yushrik bi ibadati nit ñi nga xam ni ñoom la yàlla wax ni yonent bi mu yonent bi nekkee nit na comme ñun ci waxin wax dëgg yàlla bu ñu tollee ci ay guddeem képp koo xamante ni bii jullit nga képp koo xamante ni bii yonent bi nga yaakaar ëllëg yamal qiyaam yàlla subhaanahu wa taala nee na la nga sellal sa xol set set settal fóot sa xol ba mu set wicc bul ci jàppal kenn lu ñaaw kon dañu delloo siwaat fóot xol yi bu baax a baax a baax bañ cee dencal kenn lu ñaaw yëgoo nii ñaari jullit bu ñu xuloowee ñetti fan sunu borom subhaanahu wa taala nee na lu ñu jaamooti yàlla nanguwuma lu ñu julleeti bëgguma lu ñu saraxeeti nanguwuma lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu bu ñu doon dem màkk bés bu nekkit di aji mbaa ñuy umra ji yàlla nee na nanguwuma ko fii ak jubóowuñu kon jullit warta tong mbokk jullitam lu mat ñetti fan bu ko matee rek nañu jàpp ni ñoom ñaar ñépp kenn dootu ci jullit ndax lu ñu defati yàlla nanguwu ko fa tabaarakallaahu yàlla nañu ci yàlla musal nag ci loolu kon ñu beesalaat xol yi bu baax a baax yéeg ni dañu commencé waat daanaka weer wala boog at mu bees mooy lan guddik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teru ñun ñëpp ñu ànd ko bëgg koo bégee kon koo xamante ni bi yonent bee ngi ci sa xol rek waroo jàppal benn jullit lu ñaaw waxtuma la ak di ko di ko di ko xalaatal wala nga ko koy waxal te li gën a doy waar mooy léeg-léeg nga dégg nit ku la nettali hajj ji bi ne la diwkat nangam ak nangam ak nangam nga xoolee nit kooku loola te fekk ni dëgg la sax moom moo ko def ala sabili misaal ñu ne Abdou Aziz Thiam ne dafa njaaloo ba tooñ doomu jàmbur dëgg la de def na ko de nit ñëpp di ko waxtaane fu mu la romb rek di la ko xoolee moom ma ko defoon tuub na bu yàgg ba yàlla jéggal ko bàkkaar boobu yow nag saa yoo ko rombee rek di ko xoole say bàkkaar gën a yokk ndax saa ko xoolee yàlla bindal la bàkkaar booba te moom tuub na bu yàgg ba ñu jéggal ko ko te xamoon ndax jéggal nañ ko ko wala jéggaluñ ko ko yow nag saa yoo ko xoolee rek wala nga nettaliwaat ko sax far ñu bindal la ay bàkkaar yu dul jeex kon jullit dafa war a maandu ci digganteem ak mbokkam nit ñëpp wax rawatina kuy jullit kon képp kuy jullit rek maandul ci sa bopp. li may tëjee samay kàddu incha allahu daanaka dama koy faral di wax bi burdu bi tijjee ba léegi mbooloo bu ma dem dinaa ko wax eh, doonatul farata doonatul farata ci sunu jamono ji ñu toll ndax bu ñu xamee maam Cheikh Seydil Hadji Malick si ni mu gàmmoo képp koo xamante ni bii gàmmoo la tax a jóg fexeel ba boo demee na nga gàmmu nan la ñuy gàmmoo di nga gis koo xamante ne bii maag mbay jum ñooy bokk koñ bi ñuy dem Tiwaawan bokkuñu fi ñu dal lii sama yitte mooy fexe dox ba gisi mbay jum fa mu dal lan moo ci sama yoon fa mu dal xanaa bokkuñu fi ñu dëkk xanaa du gisee chaque jour waa léegi mooy intérêt wu dem ba Tiwaawan nga ne naa dox pour dem gisi mbay jum fa mu dëkk ñu ngi gisante chaque jour di nga gis ku dem Tiwaawan ba ñëw du la mën a wax ni lii la ñu fa wax di nga gis ku dem Tiwaawan ba ñëw du la fa mën a jële benn ba te loolu ah, euh, perte gënu ko rëy dem palaasu jaamukaayu yàlla ñu ne la fiihil yumn lil mutayaamini nga dem ba ñëw yëgoo sa bopp dara dara dara lu changé sa ak sa borom waaw lan nga fekki woon kon kan nga fekki woon euh, Tiwaawan nag buñ koy wax euh, Seydi Hajj Malik dëkk fa woon ñëpp xam nañ ko waaye moom tax na Tiwaawan am li mu am tax na Tiwaawan mel ni mu mel kon suuf su Seydil Hadj Malick tëdd nga dégg ni mag ñi ñuy nettali ñépp maam rawaan ngoom musta dugg biir Tiwaawan sol dàllam ak fu mu mën a toll ci Tiwaawan nga dégg mag boo xamante ni bii da daan wàcc ci train bi fa mu toog lay toog ziyaare Sëriñ Babacar si mu jot ko mu yéegaat ci train bi ñibbi du fa tuur ndox du fa naan du fa lekk waa kon ñun lan moo ñuy yóbbu Souleymane ba mu ngi koy wax ci benn waxtaanam yaakaar naa ñëpp jot nañ ci ndax dañ ko partagante ci ci WhatsApp yi ku fa lekk tax a yóbbu la ngay paase jël ko dem ci sa shawarma yi fii jënd loo lekk lekk yóbbu fa kenn bu fa kenn dem ngir lekk Tiwaawan mën ngaa dem ba ñibbi si doo fa sax tuur ndox waxuma la ak def leneen na kenn ku nekk delloo siwaat xel yi demuñu pour tourisme demuñu pour lekk demuñu pour noos dañu dem pour jaamu yàlla bu dee noos rek tëdd ci sa kaw lal dara gënu koo nekk noos balaa nga koo xam nga dem dangi dangi dangi dangi ba sonn ñibbisi boo ñibbee ay boo ñibbisee ay nelaw rek ngay dese ay nelaw rek ngay bëgg fajar sox dootoo ko julli léegi yow yaay kan lan nga fa wuti at ba at at ba at dellu si nga dem Tiwaawan ba ñibbisi yëgoo dara lu changé ci sa diggante ak sa borom kon foog nga dell foog ñu delloo siwaat suñuy xel bu baax a baax xam li ñuy yóbbu ndax Seydil Hadji Malick baatu xisbatan bi mu wax mooy nga sellal ko sa diggante ak sa borom ala azimu laylal wilaadati xisbatan nga sellal sa digganteeg sa borom ba bu ci rax dara loo xamante ne bi dafa xaraam ida lam yakun naxwal xaraami udulu boo ci raxee lenn lu xaraam rek gàmm googu yow dafay xaraam ci yow ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moo ne lépp luy yóbbu nit ci lu xaraam jamono jooju loolu dafa xaraam ci moom ba ci lem yëgoon ni lem boo ci naanee benn quantité benn quantité bi def lay mandiloo yonent bi nee na jamono jooju lem xaram na ci yow waratoo koo naan donte dafa dagan kon nit buy def dara dem ba mu nar koo jural lu xaraam wax dëgg yàlla nag nga toog moo ko gën foofu ndax Seydi Hadj Malick waxoon na ko dinañ dem ba jamono joo xamante ne bii jullee sa kër mooy ëpp tuyaaba nga jullee ji jàkka ja kon toll nañ ci jamono joo xamante ne bii toog sa kër gàmmu mooy ëpp tuyaaba nga dem tuyaawoon gàmmu ji lan moo la ciy génne mooy fexeel dem ci jour ba yegg dem ziyaara ji tàkkusaan jot nga julli tàkkusaan wasifa sa wasifa timis jot nga julli sa timis des ca jàkka ja ñay waxtaan ñëw ñu waxtaan la ñuy waxtaan fajar bu ñu ne asalaamaaleykum nga jëlaat sa oto ñu lii rek koy faj waaye nag lii ñu gis nii nii nii tëj ca burdu Dakar yi yëpp àdduna bi yëpp ànd màbbu dem Tiwaawan dem fekkee ji tëj te burdu di nga gis ku ne la damay dem tëj te burdu jóge fi timis balaa moo yegg tëj te burdu ba jeex lu mu fa def bu yegsee li muy njëkk a def mooy damaa sonn damay wut mat laa bu ma tëdd naflaay daf la faa yóbbu tëdd fu féex daf la faa yóbbu naan lu sedd daf la faa yóbbu kon nañu xam ni jaamu yàlla moo ñu fa yóbbu bu ñu fa yóbboo nañu fa jaamu yàlla comme ni ñu ko Seydil Hadji Malick daan waxee kon tabaarakallaahu lii mooy li nga xamante ne bii moom laay wax eh, ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax ndax dama préparé wul wax préparé wu ma waxtaan xaw ma fan laay jaar pour waxtaan xaw ma lan laay wax kon dañuy delloo rek oustaz jibi incha allahu rabbi bu ko defee ngeen baal ñu rek ñun ñu yeweeku fa tabaarakallahu ba beneen yoon incha allah wa axiru daawana an alhamdulillah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.